pelle mécanique bi nga xam ne Serigne Mboup moom la jaayante woon ci Touba ca kanam ne dana leen ko jox ñu xayma ko ci 50 millions de francs CFA agsi na Touba Mbacke sëriñ Mboup jël ko yóbbu ko ci ki nga xam ne moo di wasilaam di Serigne Cheikh Mbacke Madina wan ko ko mu ñaanal ko ci la ko doore indi jébbal ko waa Touba ca kanam te ko ci loxo yi Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mor Fadal ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi. génne sa alal di ko jox ci yoonu yàlla. Euh, pour mu làqu ak mu feeñ ndax làqu bi feeñ bi mooy liñ ci am solo mooy dañuy delluwaat ci li ñu waxoon ne adallu alal xayri ka lii mooy feeñal ko pour keneen gis ko def ko nga am ci yool ba te yool bi fi ñu ko war a njëkkee mooy sëñ Habib moom ci boppam dafa nekk nationalisme ndax ba mu ngi jënd yii dafa ñëw jënd ci benn deful ni nit ñiy def ne may ma ma fay lii dafa ñëw génn chèque cash fay ne danañ si waat beneen waaye ne ma mbir mi nañ ci jaayante boobu man la bëggal lu baax ndax lii ma def sama bopp laa ko defal ci saayir ak ci baatin hmm. sama bopp laa ko defal ci baatin mooy wóor na ma ne keneen dana ci jariñu hmm. kon loolu mooy yàlla moo ma koy fay ak sëñ baax hmm. ci saayir mooy fi ñu koy def ci dëkk bi sama oto dana fa jaar danaa fa am soxla kon nag loolu ñëpp la amal njariñ sëriñ boobu di xam ne du yem rek ci jëf ji ne lépp loo xam ne Touba ca kanam soobu na ci dana ci ànd ak ñoom. man maa ngi soññiwaat sama bopp ndax yaakaar naa duma yem ci lii ci Touba ci kanam ah keneen tamit du waru ci yem ndax dëkk bi mënoo fi ñëw ñu jox la fi terrain nga tabax fi ay kër yu mat centaine de million ñuy defar dëkk bi te dafa am ñaar yoo xam ne nii tànk dëkk bi réglé wu ko. agguñ ca fa sëñ bi bëgg woon dëkk bi. Mm-hmm. mi. mooy euh, viabilité mooy kii bi assainissement bi dana régler ndox mi ñuy naan dana am. dëkk bu sell bii di Touba lépp loo xam ne murid yi bëgg nañ ko fi mën naa am lépp organisation la laaj te Touba ca kanam wane na yoon wi. xam nga budget état sax murid yi xajuñ ci waxantuma defar assainissement Touba ak ndox mi yaakaar naa nii nga xam ne ni sañ Habib moom la commencé ah euh, incha allah yaakaar naa Touba ci kanam. defar ndox ndox mi ak euh, defar assainissement bi ak yoon yi wax dëgg yàlla euh, dana dana taxaw ndax soo gisee dëkk bi ku ne defar nga sa kër bam ne bam ne booy yi lan moo am problème mooy mbedd mi rek moo am problème. mbooleem kilifa yi nag santaan nañ bu baaxa baax sëriñ Mbuub ci taxawaayam jëmee ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba rawatina liggéey bi nga xam ne moom la jébbal Touba ca kanam. sama borom dimbali jox la xéewal waaye xéer la ci nga def lu baax loolu da xam ne fondation bu baax. waa jërëjëf waay soo juree waaye ki ñu tuddee rek ku ñu ko tuddee mënu ñàkk baax moom ndax ko da daa bokk ci li mag ñi moom ñu ko fàgguwaaleel kon ñu ñaan yàlla ba ca jiitu eh, yàlla nga yàgg jëfal lislaam waaye yàlla nga yàgg jëfal Sëriñ Tuubaa waa Touba Ca Kanam ñu ngi koy ñëw sant di la gërëm te ñaan yàlla defal tawféex li ma fi yoroon def na fi forage boo xam ne defe naa ne a ngi koy fàttaliku mu muy fële ca Daaru Daaru Rahman waa kër Golak àddina ju dul ñoo ciy naan te loolu tuyaaba ju dul jeex la day mel ne dafay dugg ci mbir mi. kon Serigne sëñ Cheikh nee na jërëjëf waaye sëñ Ahmadou Moukhtar mi jiite Daaru Xudoos si neen la jërëjëf àll Aliou mii nga xam ne tam ah, moom la nu sëñ bi booleel naan la moom ñëw moom it nee na la jërëjëf mbooleem yoon wi nag nee la jërëjëf. moom Serigne Mbuub di soññewaat ne liggéey bi nekk na liggéey bu am solo boo xam ne kenn ku ne war na cee jàpp.